te booy mun nga sàcc. mais yow booy doo bokk de. yow doo bokk yow boo tàmbalee non non doo bokk waaw commencé waale leen ko rek. kenn commencé waale kenn commencé waale lan la tey tey soo waree ngeen ma te maa jug dem kon. tey du ma jëlaat ndaara de. Ibe eh, jàpp na ko jàpp na ko jàpp ma nga jàpp na la balaa force daf lay jàpp li fi naree am ma bàyyi yéen ñëpp ngeen ngeen yaa ma ay sàcc tubaab tubaab yi fi dégg ko ngeen war a xam ne sàcc li do amatul fenn premier force ma ko waaw toos jëlee nga pare da ngay féexlu ah, man ngaa féexlu ci biir de. boo am boo ñëwee rek moom sama bi commencé. première mu leen wax du ma ko jël moom. noo fay jël dara yow yaa ngi woon ci biir boobu ak léegi. waaw loolu. ak tàngaay bi ñàkk classe. ni ma bañee góor bu mën a gaaroo. fii nag man juboo naa da ngay juboo man maa ngi nii kii lu ne def na ma ko ci kër gi tam mooy loolu. yow maa mën a téye merci boppam boo yaa ngay kuul. toogal foofu bàyyi leen noonu man li may defal ñii xamu leen ko. ngeen ñu laaj lu tax tey doo school de. waaw kay loolu laa doon bëgg laaj. Ah. waaye ñëwoon gàlla gi toog daam fu ñu ko téye yaru yaru lay def de amul fi di wax de. def leen lu leen toos rek ak ratatatam si biir kër gi rek mu ñëw tey mu ma nii ah loolu yéeme na. toos ñoo ko yor toos ñoo ko yor def leen lu ko jàpp yéen nii du leen ñu see ñamal tuuti. yow xaaral ci kanam tuuti lii am mi ngi am ci kanam tuuti. amoon na ne see ñamal tuuti nag ku ko bàññi ray de. gis nga de gàlle bi naqari woo xam ne yow a neexul expliqué rek dañoo expliqué par mais yow da nga naqari woo xam ne. dama naa la billaax yoo xam ne da nga bokk si man bu ma di la gëy gis tamit mooy loolu quoi. eh booy dalaat. bandaare. waaw eh booy xool booy dembis booy. eh booy dem xanaa kooku après maa la ñaan xoox li ñuy wax maa la ñaan xoox jërë la fi indi booy. wala booy bii moo tàng de. waa tonton yow lii moo war nga see wax. moo de jël ndaare eh. toos mënu si dara. yéen lu may waxoon ci kër gi. eh toos eh eh baa ko ma dem. Eh, booy konteen nga live. dama def loolu yow tonsé ñun doo fi nekk di ñu indiqué di ñu wax li ñuy def ba pare. Ah, kii fii dugal jigéen ñi ba pare loolu mooy lan tos tos naa ko woon waaye ku daal bëgguma kilifa bu mel ni yow yaa ñàkk fayda yéen toos yéen a dese ak moom damaa xamul sax la may ngay indi kee taxaw moom nga nekk fi naan ko da kii da nga fàtt ne maire gën a jox mën a nekk toos moom daal ñu ko moom de mu mel ne eh, duñ bu leen neexee tox di wax def leen du leen neex boyeero Ero ñëw na tojal gàlle bi tojal gàlle bi kenn du wax tojal gàlle bi. dafa lu la neex man dama la namm yow ak sa soxla. bàyyi ko rek dafa lu la neex. Eh, eh, eh, toogal rek toogal toogal. booy ay feeñ ngeen ay feeñ ngeen ñëpp ay feeñ ngeen. ñaara ñaara fan nga waragul ci koor gi. ñaara fan nga waragul ci koor gi. wóora ah. man bàyyi loolu dañu ko. waaw tojal gàlle bi mu jeexoon. ñëwal ñëwal tey fii la de. bu gaaw wàcce fii man soo bi.

Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda.